jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen siyaar yi ñuy seen site internet Gaston Production tey nag ñoo ngi fii parcelle euh, am benn xew benn événement boo xam ne moo ñu fi indi muy Garga numéro 2 ñu gën koo xam ci duñ jaar ci turam sax sax ci làmb lañ nekk tey nag day ngénte yaakaar naa ne moo nu tax a teew fii ci Parcelles Assainies site Fadia yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko. muy ngénte soxnaam mondu làmb ñëpp teew fi yaakaar naa ne gis ngeen mbër yu bëree bëri pour l'instant ñi ngi fi ñu toog ak kilifa nag fas yéene waxtaan ak moom ci jataay bi digganteem ak Garga de lañ moo ko fi indi comme ñun dañuy hors Cissé rek dinañ ko laaj tamit ci làmb ji fi passé moom nan la ko gise maa ngi lay siyaare bu baax a baax alaaj saa Tuubaa mu baax mi di la bëggee. waaw asubillahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonant ñu ngi ñaanal suñuy waajur suñu borom yàggal leen fi lool te ñu wér di ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou yàlla sunu borom bi yàggal ko fi te may ko wér di barke yonent yàlla Muhammad ak mboolem kilifa diine bu nekk ci réew mi tarixe yëpp rek barke Cheikhul Khadim ñi tëdd ci hôpital yi yàlla fëgg seen bopp ñu caabi féete ginnaaw yàlla sunu borom bi itam may leen ñu dellu ci seenu njaboot ci barki alxuraanul karim ñu ngi sant bu baax a baax. maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah alhamdulilah. waral teewaay bi sa diggante Garga 2 ba tax nga dagg sa tey ñëw fi. waaw Garga dama koy faral di wax nee naa leen axlu làmb lu muy rëy rey moom laa fi bokkal deret moom sama mbokk la sama deret la parce que sama rakk mooy sëy fii seen kër frère mooy denc sama rakk kon kooku xam nga mbokk la beneen bi ci topp mooy bàjjanam sunu kër la lay lay sëy kooku itam xam nga bu jaxasoo la benn famille lañ man ak moom wax dëgg yàlla muy sama lépp nag. wax dëgg yàlla bés bi itam ba mu ko ba mu ko waajee ba léegi chaque jour mu woo ma xam nga ma nit wax dëgg yàlla nit amul lu dul bisam parce day ñëw ba tuubaa di ma seet si di sama kër gi nekk parcelle it du fa jóg yow gis nga day ñëw tout le temps di ma setsi si kooku tey wax dëgg yàlla mënu ma yëg lu dul mu xewle mu ñëw teewal ko incha allah. mën a waaw nit ku baax la moom tey rek yaakaar naa bi ñu jógee koñ ba maa ngi koy wax nee naa gar gar ga daanaka du mbër parce que xol bi mu yor. <laughs> moom digg yàlla nitu yàlla loo xol bi dafa rafet lewet na amul problème mu àdduna comme yi ngay gis yeneen mbëri sax xam nga doo ko gis ci garga de mu nekk di tëkkonte wala muy defante yenn yi sax doo ko gis ci moom parce wax dëgg yàlla taalibe la jox na ñëpp cër mag ak ndaw am na yëg-yëg ci doomu aadama bu toogee déggu la da lay woo li ma gën a neex ci moom mooy lépp loo xamante ni tey mu ngi mi ngi si moom loo xamante ni lu mu la bëgg a wax la da koy wax boo waree def daanaka danaan la sëñ bi defal lii defal lii defal lii boo waree dem foo warta dem sax mu ne la noo foofu du sa place garga bu ñëwoon ba tomb la ci mbedd sax fi nga taxaw roofaa faa taxaw day ñëw na la sëñ bi fii waroo fee taxaw parce que loolu itam nit ku la bëgg yéene la am fu mu la teg rek moo koy def wax dëgg yàlla muy nit ku baax di ko ñaanal yàlla itam gan gi nga xamante ni tey moo waral ñu daje fi tey yàlla na ko yàlla def muy mag mu am lislaam am diine ak lislaam barki yonent yàlla Muhammad yàlla taxaw ko ba mu dem tey ba soutenir ay ay waajuram ci barke alxuraanu karim yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal ak mbooleem koo xamante ni rek ñu ngi lay defal lu mel nii ci bisub tey bii ndax yàlla suñu borom moom ay mbiram tey am na ñoo xamante ni ñu ngi def lu mel nii kon gan ñi nga xam ne ñoom lañ koy defal yàlla na leen yàlla taxawu sàmm leen barke alxuraan. ndax dimanche passé ñëwoon naa stade waa seetaan ci lamb. Hmm, noo noo gisee combat ba. waaw lamb ji neex na li ma ci gën a neex mooy làmb ji ñëpp dañ ne woon du am li ma gën a neex ci làmb ji loolu ci la bokk parce que combat bu toll ne Balla Gaye 2 Boy Niang promoteur bi jël millions yu bëri def ko ci ñu dem ba combat bi jege si ñu bëri bëri sama nawle sëriñ yi am ñu jénn commencé. di wax ci promoteur bi tëgg làmb ji ak mbëri kenn ku ne ñu ne kii léew ko dal laaw ko dal làmb ji lëndëm na làmb ji leerut mu am def na nii def na naa yàlla sottil bis ba am bis bu sax dama leen koy wax nañuy def ndànk yàlla moo mën a wane lu weex ba ñëpp gis ko mu def ko mu ñuul te yàlla kenn du ko jiitu ci ay mbiram lu waay def mu sotti yàlla neex yàlla sunu borom mooy maye. liñ na woon du am tamu am nag moo ma gën a marqué man moo gën a neex wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla loolu moo ma gën a neex ci bis bi ak réussir gi bis bi réussir mooy stade bi ni mu taaroo Balla Gaye 2 ñëw na taaral stade bi booy ñaa ñëw na taaral stade bi stade bi am ambiance ba léegi nit ñi duñ ci doyal dañuy toog di seetaanaat ko yi parce que ngir lan man keroog laa mos a gis ñu duy ko ba mu fees ba nit ñi yéeg ci kaw pieds yi toog fa place amatul ci arène bi kon loolu ñu ngi koy ñaanal itam makan bi nga xamante ni tey mooy taxawu papam ci liggéey bi lépp lu ci papam def wala lu ci papam am yàlla na ci am lu ko raw yàlla bu ko cat yàqal ci dara ci àddunaam yàlla suturaal ko aar ko yiir ko te borom jom la borom ngor la te keroog dafa wax sama yaram daw mooy bi mu ne Modou mi ah, ko tàllee micro mu ne yàlla rek a fi ne ndax bis bi moom it li ko marqué woon mooy bis bi ñu ne woon du am te boobu talutoon bis bi. demoon na ba tolluwaay yoo xam ne mu ngi ci papaam parce que nit amul lu sa sa waajur tey ñoom gannaaw yàlla yonent bi li leen gën a motiver bañ xeex bis bi am sax ñoom ak mbëri yeeg yooyu yëpp sax loolu ci la bokk nañuy waat xel yooyu ndax nit warut dëgmal événement ngay yàq xelu doomu aadama yi naan bis bi du am nañuy bàyyi loolu képp ku koy def na nga ko bàyyee. parce que itam alal dafa sax ci xol nit mënul jël alal ma investir ko ci benn affaire ba pare nit ñi di xaar bis boobu yow nga jénn xam ne sénégalais dañ lay jox bopp ngay taxaw devant public naan bis bi du am wala bis bi dafa def lii dafa def laa nañu bàyyi loolu nañu ndax yàlla ay mbiram kenn xamul lu mu doon. macha allah am na solo combat bi passé andi woon nga Balla bii paase ñëw nga wala ñëw. ñëw naa. Hmm. ñëw naa Balla ñëw naa saat Balla Gaye comme li may wax rek man wallahi la asime azim Balla Gaye mosuñu gisante sax ni daje ni ci mbedd barke alxuraan lu dul làmb barke alxuraan te loolu laay dégg mais gis nga li may wax chaque jour rek man taalibe Serigne Touba sama liggéey bi amul Balla Gaye yoo amul booy ñaar amul Ama Baldé amul keneen ak keneen ku mu mën a doon ci àdduna ñu seq liggéey damay liggéey ak yow képp ku ma wóolu pour liggéey loo ma dama lay liggéeyal ma ñaanal la yàlla ci li ma yàlla may ñu ànd te yàlla rek tax. bu ko ñaanal. sa adversaire. moom. ku ci bëri adversaire la. ku ci bëri wut ak Modou ku ci bëri wut ak Modou laa la wax de. combat boo mën di am soo mu liggéey loo ma liggéeyal la mu doon tax xam moo tax. ndax Ama Baldé wala Modou Lo dañuy taamu promoteur bu leen di tëggal làmb ah hmm, xam taamu wuñ ko promoteur bu leen fay dañ lay dañ lay bëril parce que lu seen kër la yóbbu. sama dépasse kër hmm, ñoom ñooñu kenn joxe lu ma ko de kenn faye ma courant kenn yore ma sama njaboot ci li may liggéey nii ci laay tedd ci laay yor sama njaboot ci laay faye sama courant ci laay joxe samay dépasse ci laay dimbale ñi ma yàlla boole te yàlla tax kon duma ma ci amal kenn limite nit wóolu ma xam nga man au contraire am na ñoo xam ne ñoom ñoo ma war a daw mais buñ deme ba wóolu ma ñëw ne ma damaa bëgg liggéey ak yow yëkkati xaalis fay ma dama leen wan ginnaaw. ah te ñoom ku ci promoteur ñëw na la lii damaa bëgg nga bëreel ma da nga bu la fayee da ngay dem bëri ji publicité kuñ ko ci fay da ngay dem publicité ci parce que li ñu yóbbu seen kër la ñu lijjanti yàgg nañ ko wax tey am na loo xamante ni yàlla moo koy def man li ne ci man def moo ko ci sama bopp yàlla suñu borom bi la neex mu def ko ci man du mbër moo ko ci def du benn doomu aadama boo xam ne moo mën a taxoon ne Sa Touba mii li ne ci moom man maa ko ci def yàlla moo ko def ci man. kon kenn du ma taamul ku may àndal ku ma dul àndal ku ma wóolu daal liggéeyloo ma naa la liggéeyal. wax bii passé moom xam naa ne seen mystique yi moom boo ñaada ko xam nga tey damay faral di wax chaque jour amul mbër bu dul am tàkkusaan ci làmb tey làmb buñ ko dee wax dëgg séeréer si ëpp leen ci doole yombut ci wàllu làmb ñoo gën a xam làmb te pourtant dañuy mànkoo ñoom ñëpp ngemb mbër ñëw yàlla yàlla gàntal dama naan la ñi naan neex yàlla am naqar yàlla am sax dañoo réer rek seeni bàyyi leen fi jiitu fopp te dem nañ te kenn jëlu leen ko dul yàlla suñu borom bi lu waay def mu sotti yàlla la neex gis nga ki war a toog sa kaw mbër bi la war a daan dajaleen sëriñ ñi ci àdduna yëpp ñu ñëw munoo wax ba du la daan loolu jiitu na sab juddu kenn ku ne ki ko war a daan da koy daan munu ci dara yàlla moo tuddoon ne Balla gay 2 fu mu mën a jaar booy Niang koy daan tey Balla Gaye am na ci tàkkusaan ban mbër nga gis bu nekk ci làmb ji boo xam ne lënguñ ko benn jour yóbbu. làmb amul ku ciy nekk laa te doo am bis bu ñu la dul lëng yóbbu ndax dégg bu baax li ma la wax nii. rëg-rëg melut nu Balla gay 2 melutoon. melut nu Modou loo melutoon yaa ngi dégg te am nañ bis ñoom ñaar ñoom ñu Modou Lo li mu def ci histoire làmb est que am na benn moromam bu ko fi def 14 combats 14 victoire 15e nga door a daanu ndax loolu gis nga ko fii nii ci ko ci def bu ñu waxantee rek te yàlla rek tax beneen bi ci topp mooy taay bi mu yor nii doon roi des arènes mos naa am ci histoire làmb parce que roi des arènes dañ doon wax naan boo gudd réew pour nga doon ko day jafe Modou Lo ñëw jël ko. ci jëlin bu rafet nag di ko nuyu au passage di ko ñaanal jàmm ak wér-gu-yaram di ko ñaanal famille yëpp ak mbooleem ñi nga xam ne dañ koy béggee ak génération xarañ beeg ñëpp rek di nuyu itam wax dëgg yàlla sama frère Papis Ndiagane barki démb gis naa ko muy def benn interview wax dëgg yàlla wax ji rafet lool ba Pawlish mbay ñëw di ko tooñ xam nga mu confirmé ne sama waay la. wax dëgg yàlla loolu mu wax noonu mooy dëgg parce que Papis mosuñu seq lu ñaaw man ak moom mosuñu ma wax lu bañ dalee nekk ci Modou Lo bu léegi Papis Ndiagane mosuma def lu ma naqari au contraire préparation combat mu danaan jot sax may war a voyager wala ma war a dem fenn mu dëgër sama côté sax Papis mooy lijjanti xaalis jox ma ma dem. am na boo xamante ni dañoo amoon problème oto war a voyager du ma ko fàtte mu Papis moo ñu moo lijjanti xaalis jox ma lu ñu demee foofu ba pare lijjantiwaat oto bu ñu yóbbu Mor kooku moom mention spéciale. sama xarit. waaw moor Mor Cissé dafa doon nit koo xam ne dafa bëggal boppam suñ dëkki cosaan yi nag dend yàlla dogal ñu doon ay xarit mu bëggal ma boppam jàppal ma boppam Mor Mor Cissé maanaam li ma seq moom ci préparation combat Modou Lo sequma ko ci kenn moor bu mu musaane dem préparé ji ba ñëw sax moom laa daan toogal. na ko Mor lii ak lii kat laa gis mu ne mu daal di ree na ma man itam de portant lii nga wax nii loolu laa gis te wax nañ ma léeg-léeg laa mu doon même chose yàlla boole ñu ba léegi nii dara musul ñaaw suñu diggante wax dëgg yàlla Ibulaay moom waxu mooy waxam kooku moom man maa ko bëggal sama bopp moom Ibulaay parce que daf ma ji ngor Ibulaay ji loo xamante ni wallaahi la azim damay toog di xalaat nan laa ko koy fayee barke Seydina Mohamed parce que nit amul lu dul bisam Ibulaay bis bu ma am dagg na yitteem ñëw ba Touba fekk si ma sama safar gi passé moo ci mujj sa kanam la taal otom jóge Dakar ñëw bu Touba. lu ma xewle Ibou Laye ñëw boole kook di jël alalam di ko def ci man maa ngi koy ñaanal jàmm ak njabootam li mu bëgg ci àdduna moo ko xam yàlla na ko yàlla defal. macha allah fi may jeexalee di encouragé bu baax a baax Balla Gaye 2 di félicité Boy di ko ñaanal yàlla moom ndam li jikko parce que ñoom ñëpp ndam li li ma doon wax rek jëndul Sénégal ndam li ci biir réew mi la nekk Balla Gaye 2 def na ci histoire lamb lu kenn du fàtte. def na ci histoire làmb loo xamante ni asif da koy bind force la loolu kenn mënu ci dara amatul lu muy prouver ci làmb li mu war a def lépp def na ko li ko desee ci carrière mooy lu mu soutenir njabootam yaa ngi dégg gérer carrière am xool nu mu ko rafetalee te grandeur bi mu def mbër daan la nga tàllal ko loxo joxu loxo pour mu jóg loolu la ca biir ñoom ñaar la ba pare moom mu jóg ak blessure am waaxu fekk ko ba ci plateau bi moom bala Gaye 2 saafo anteeg mbër bi ñaanal ko loolu wax dëgg yàlla bëriwul champion yu koy def bëri na champion yoo xam ne wallaahi la azim soo leen daanee maanaam naqar bi ñuy àndal ak bis boobu ni mu rëyee li ñuy àndal duñ bëgg sax nga jege leen rawatina ne ñoom ñu sol seen dàll ñëw ba ci yow. am na bi nag ak ak Modou Lo Boy Niang xam ci wax. ci dëkk bi de. ci wax comme que combat bi taxagu topp beneen bi ci topp mooy comme que Modou mi ngi woon ci contrat te amaguñ lu ñu leer ba xam day bëri ci contrat boobu wala day bëri Boy Niang saa wax dëgg yàlla en tout cas daal Modou pare na pour ñëpp. Modou pare na non Modou pare na pour mbër yëpp moom dama lay wax benn affaire man moom du ma tiital ak benn adversaire ci àddina wax dëgg yàlla. parce que ci moom laa gisee mbër boo xamante nii mu am combat day entraîné mu ñàkk am combat day entraîné te Modou doo ko gis mukk wallaahi azim yaramam bi Modou bu toogoon ci xew xew yi ne sax li muy kii bu ci toogoon nii sax bu ko nit jegee tam leer ko ne na bëreeg yow dana jéem a bërantoog yow loolu moom naturel la ci yaramam. tiitaluñ ko ci ci làmb dara moom good degré rek lañ koy lañuy la ñuy jooy ci moom mais amul leneen wax dëgg yàlla. macha allah fi may jeexale ak yow euh, euh, ñi naan Balla Gaye 2 dafa dafa blessé yow gis nga loolu wala gisoo. xam nga tey am na domaine boo xam ne duma ci bëgg a dugg parce que Balla Gaye 2 dafa blessé wala blessé wu tey ñoom am na staff am na ay mbokk comprendre nga te moom it mun na ci leeral ay mbokkam mun na ci leeral mais Sa Touba bu taxawee di wax ci blessure Balla Gaye wala muy wax ci blessure boo Niang wala dara bu yàggee damay mel ne comme ñi ci doon wax avant est-ce que comprendre bu baax ma wax nii loolu du sama domaine dama leen ni ñaanal yàlla daal mbooleem ku ci am natt bu yàlla teg sa kaw yàlla na ko yàlla tegg mu oyof toy di ko ñaanal yàlla moom Balla Gaye 2 li des ci carrière yàlla rafetal ko yàlla jàppale ko taxawu ko noonu laa koy ñaanle booy ñaa ak mbooleem mbër bu nekk ci Sénégal parce que man li may wax rek man pour ñëpp laa nekkalu ma fi ma sàmba nekkalu ma fi ma demba dëgg la nag féete naa kenn ba ñëpp xam ne mooy sama mbër muy Modou du ma taxee ci di ko wax que tey bu lëg lekkee olom na ko gërëm a cooy gannaaw yàlla ak yonent bi su ma nekkee Dakar fii nii ba dem ba bañ ràññee ma ci yu baree bari Modou Lo la ndax moo ma yoroon biir këram di ñaanal sama papa bi nga xamante ni moo waraloon loolu yëpp muy Baye Diouf yàlla na suuf oyof ci kawam te xare ko àjjana bi jaayi Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di ko ñaanal mboolem jullit ñam fa nekkal ak ña ko fa fekk seeg ñi nga xamante ni ñoo fi des yàlla bàyyi leen fi ba ci kanam a kanam barke alxuraan sant nañu baax di nuy itam suñu suñu xarit Modou Galas Mbaye muy jànkutu bu mag di jàmbaari Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moom léppam sëñ Fallou la wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla. ñoom moom ñoom ci njabootu sëriñ bi lañ parce que sëñ bi moo leen tànnal boppam ndax jànkuwut xasaayit moom kenn du ko def sa bopp sëñ Tuubaa tànnal boppam def la ko kon Modou Galas Mbaye mi yàlla na yàlla guddal fanam di nuyu alaaji Cheikh Diop Mbaye moom sama xarit la wax dëgg yàlla ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar di la ñaanal jàmm moo Modou Anta di nuyu Modou baay Fall wax dëgg yàlla di nuyu promoteur yëpp rek Fallou Ndiaye bàyyi ñu kenn daal ñëpp ziar nañ leen Père Gaston yàlla na yàlla fëgg boppam mu oyof toy ba mu dellusiwaat ci njabootam ci barki yonent yàlla Muhammad di nuyu ñëpp famille famille famille famille ñoon El Hadj El Hadj Masata Baye waaw fami Baye Ali bi yëpp sóora ñëpp rek maa ngi leen di ziar di nuyu ñëpp rek jërëjëf. macha allah am na solo yaakaar naa ne maa ngi fekk El Hadj Modou Galas Mbaye maa bu baax a baax. noonu yàlla boole yool bi. maa ngi lay santaat yàlla bu baax. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di dellu sunu kóolite ak sunu yaakaar. ci na Ahmadul Xadim di la nuyu. Euh, euh, sa diggante ak Garga 2 ba tax tey nga dagg sa yite yëpp joge Touba wala nga nekk Ndakaaru ñëw ci xewam bi tey. waaw moom sunu jarbaat la ndax. wax yaayam di sama jigéen di sama xarit. yàlla def Garga doon xale bu yaru. Euh, leen xam ci moom moo yar ak joxe cër ndax dafay jafel léegi jamono ji nga mënal sa bopp dara ba pare yaru waaye loolu dalu ko am na yar am na ay teggin ku jox ku gis rek cër bi dox sa digganteeg moom dina la ko jox ba mu doy sëkk loolu mooy sunu teewaay ci bis bi. xanaa yàlla. defal ko gudd fan ak wér rek ndax sama sëriñ ba dafa waxoon alaaji Fallou Mbacké ni ko fi yàgg te wér loo bëgg a def di ko def. kon ma xarit maa lay ñoo ngi lay fay bu baax. ci loo ne. ñoo ngi sant bu baax ñoo ngi sant bu baax alhamdulilah. tey moom sa xarit moo xew la. waa sama xarit sama doomu ndey sama grand frère. di Bas. waaw ñoo ngi koy ñaanal tuut tànk bi nga xamante ni moom la fi yàlla indi. suñu borom màggal ko teral ko. si barke Cheikh Rafal ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax. Hmm, seen diggante ñaar waaw bas nag euh, moog sunu grand Moussa Balla Gaye ñoroon ànd. mën naa ne ay seex la ñoon parce que Moussa tey du di sama mag ju xamante ni ñoo bokk ndey ak baay hmm. nga xam ne tey bu duggee si làmb grâce à Garga 2 hmm. kon it ñun ñoo ngi koy ñaanal suñu borom yërëm ko xare ko àjjana tey bu ma teewee fii tey mën naa ne Moussa la moo tax ma teew fi ndax garga tey jiyante na ñun loo xamante nii tey bët bi ñuy xoole Moussa rek moom lañ koy xoole ndax tey ni ma teewe fii du guléet parce que ay combat ma yëppam dama siy taxaw ndax tey man nañ ne koro tuddam biñ teewee nii dafa taxaw presse bépp tiim ko mu ne tey tout tànk bi tey bu doon góor sama doomu ndey laa koy tuddee loolu doon loo xamante ni lu kawe la si ñun ñun ñëy mbokki Moussa Balla Gaye kon loolu ñun dañ ko si sant di gërëm di ko gërëm bu baax a baax ñuy dem ba yàlla defal ko mu doon ay roi des arènes roi des arènes ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax Modou waaw jërëjëf sant weer yéen yaa ngi ñëwee ça va. noo mën a wax si Garga bi. waaw Garga sama bu yow ma ne sama rakk la sama xarit la maa moom sant ak dimanche la. nit ñëpp xam nañ ko ku ma ku ma gis sax danga may laaj danga may laaj ana Garga waaw kon moom maa ngi koy ñaanal yàlla rek yàlla defal ko cat dàqal ko seetaane xale bi nga xam ne moom ngeen di tey nii yàlla def ko mu dem bañ koy muur mu sëy fekkee te balaa boo fekk bàyyam lu mu bëgg nekk roi des arènes yàlla defal ko lépp lu mu si làmb yàlla defal ko wala waaw maa ngi koy ñaan yàlla bu baax a baax a baax Garga de moom maa moom moom benn la moom samedi dimanche fu moo seen seeku kii kii li wax dëgg la loolu li mu wax léegi xam naa si dara diggante Moussa euh, na fanaan nañ yendu nañ def nañ ne ñoom ñaar dañoo bëggante woon bas ni mu ko bëggee noonu la ko Moussa bëggee Moussa ñoom ñaar amul tar lu ñu umante lu ñu umante dara yàlla moo moo ko dogalee nii Moussa ñu ko ñaan yàlla yërëm ko xare ko àjjana barkeel njaboot yëpp na ñu fi bàyyi si barkeel Alxuraan yàlla mën na ko yàlla def si barkeel Alxuraan waaw. Serigne Dame Dione maa lay siyaare. waaw ñu ngi lay delloo ziar bu baax mu Anta. baa yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. tey lu waral teewaay. waaw bis bii de moom xam nga suñu doom day moo xewle. muy Garga 2. waaw tudd ba pare ne day ngénte. ñu xam ne ngénte ngéewal lay def rek. Mm. mu ne ñu ñëw noos si. Mm. loolu kese ñu fi indi. <laughs> looloo ñu fi indi de. fas yéeneen noos quoi. waaw fas yéeneen noos. bégal suñu suñu jabar di incha allah. seen diggante lan la ba moom bu xewlee parcelle bi yëpp ay ñëw. waaw sincère rek. dafa sincère respecté ñëpp jox ñu cër ñun moom wax dëgg yàlla man maa ngi ko xamee par par Papa Sow quoi mais cër gi mu jox suñu mbër jox ko suñu mag ji moom lañ koy delloo ba pare moom mu ko tamit vraiment respecté ñu torop bu ñu gëjee dégg sax dafa ñuy woo téléphone di ñu nemmeeku di xam ci luñ nekk ba pare mën invité nit nag da lay invité kaay reer si kaay ndékki seeg fonde sax ñëwal du naan si fonde dala koy invité nit ku baax la quoi voilà loolu moo tax nag bu xewlee ñëpp ay ñëw. loolu la jërëjëf jaajëf. ñor maa ngi ziar. waaw maa ngi lay delloo ziar. si loo ne. maa ngi ne maa ngi am jàmm baax a baax. lu waral teewaay bi tey. waaye teewaayu sunna teewaayu sunna bu dëgër boo xamante ne nii wax dëgg yàlla moo war a nekk si diggante jullit ak moroom moom diggante nit ak nitam ndax nit moom comme niñ koy waxee kenn du ko lekk kenn du ko naan teraanga dong lañ koy dee. te teraanga yi yii def ci bokk ñuy demalante ci bànneex maara détaale di ñu demalante si ay naqar ci mel noonu bu ñu amee làmb dañuy demalante ñu ñoo bokk géej gi di entraîner ñu ñoo entraîner doo di defandoo lépp bu yu mel nii amee tamit dañuy def teew waaw. loo ko ñaanal yàlla na sa yàlla yàlla na sàmmal ko ay njabootam. yàlla jubale ko ak yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko defal yàlla na xale bi bokk ci xale yi nga xamante ne nii tey ëllëg dañuy bokk ci xale yi ñuy nawloo xale yi ñuy roy xale yi téye réew mi yàlla am na ko mën na ko te deewu ko dara ñim ko dénkal yàlla na ci doomam ji bokk ci barki yonent bi jërëjëf maa ngi siyaar. yow siyaar. moo daan maa ngi maa ngi jàmm baax a baax. li waral teewaay bi Garga rek. waaw ndax moom amaana da ciy day mbëru parcelle yu xam ne kenn la si. ku xam ne dafa wàcce boppam suufe boppam. bëgg ñëpp daal di ñëwal ñëpp. tey muy tudd nii kon foog ñu teew daal. ñoo koy ñaanal doomam ji. gaañam yàlla na doon magum lislaam di koy dégg fu sori di ko ñaanal doomam ji moo xam lu mu bëgg si àdduna yàlla na ko sunu borom dafal dafal ko jàmm dafal ko tawfiq ndax Garga moom nitu nit ñi la daal man mënu ma wax moom si moom lu bëri aja mbër maa ngi ziar waaw daw non daw ma c'est que xam nga maa ngi sa waay ñoo fi ànd moo yi tey la waaw sa diggante Garga 2 ba tàng fi tey waaw ah, Garga 2 grand bu euh, yëg nit rek parce que àdduna moom lenn rek moo am nit ki la yëg nga yëg ko xam nga loolu lool loolu loolu loolu loolu loo ñu fi indi tey xam nga mu nekk koo xamante ne tamit ki euh, ku neex a àndal la quoi waaw malgré euh, dañ ko yëg rek ñëw mais ni la xam nga xel day fatu moo waral sunu teewaay tey te ànd démb moo waral ñu naan tey jaajëf Youssou Youssou maa lay baax baax di la du lay bay na ko mu. yaa ngi si jàmm. baas lépp tawfeex rek. alhamdulilah alhamdulilah. 40 yi kañ la woon. passé na kañ xool le 3 waaw le 3. le 3 lañ ko doon def ko oui xam nga rek dañ dañ ko def mos. yaa teew ko ñu wàcceel rek mu jeex been yoon ko moo gën. Mm-hmm. bañ a sonal ko yëgal ak yooyu. Mm-hmm. waaw loolu la. Mm-hmm. mais yaa ngi si jàmm. waaw sant yàlla bu baax alhamdulilah. teewale bi tey fii. waaw tey moom ki teewale moom ki ki xewle moom. ki xewle moom kenn duñu ko wax xam nga rek suñu nit la suñu lépp la lu luñ xewlu da ciy taxaw da si fees dell waaw ku neex a àndal la ku neex a jàpp quoi waaw te ñun moom xam nga rek ñu xasee ba téye nit moom dañ koy téye xamuñ jàpp bàyyi ñu gis moom jikko yu rafet waaw jikko yu jikko jullit daal waaw xanaa di ko ñaanal suñu borom rek li mu mbébét si soxnaam seeg njabootam gi yàlla joxo ko yàlla suñu borom bàyyee koog moom mu dem ba yaral ko boppam ba màggat ak moom si barke Mouhamed yàlla mun na ko ba ndoom ji fayal ko boppam li mu xam ne def na ko lu kawee njortam daal loolu lañ ko ñaanal wax dëgg yàlla ku baax la Garga 2 ku am yitte si nit tout le temps dañuy déggante du wane day nu mu jàpp-jàpp dafa may envoyé message di waxtaan man xam nga ku am loolu moo tax ma def déplacement ñëw fii teewal ko ndax lu ma xew la muy bu ko yëgee wala la si bi da si teew moo tax daal di ko ñaanal suñu borom yàlla may ko fanu gudd ak wér gi yaram yàlla bàyyi ko soxnaam si doomam yi ak yeneen i njaboot daf si góor yu jigéen yëpp si barka Mouhamed yàlla ni ko yàlla defal borom baax la daal ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax wax dëgg yàlla jërëjëf Azé macha allah. Modou Anta ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay bu baax a baax ñu ngi sant wér alhamdulilah. waaw sunu sunu xarit suñu doom day Garga moom moo xewle moom invité ñu moo tax ñu teew fi waaw looloo waral teewaay bi diggante mag rak xarit ak xarit rek. waaw moom mu nekk nit ku baax nit ku oyof chaque jour deux jours ñu ngi déggante téléphone ñuy waxtaan ci lu bari ci carrière làmbam ak ci lu bari dañuy waxtaan chaque jour chaque jour. moom chaque deux jours rek dalay woo téléphone laaj la su loo nekk affaire yooyu xam nga loolu moom nit ku baax rek moo ko mën voilà looloo waral diggante bi daal moom ñu ñaan yàlla def si jàmm mu gën a sax.